asalaamaaleykum Sénégal man la wuli wuli maa ngi wax mbir yëpp nañu abone ci wasaare lam parce que wasaare lam am na solo jël lam boo wasaare ko ci réew ak bitim réew waa li neexul ci wasaare lam. am na lu fi xew man dinaa ko wax am na lu fi xew man dinaa ko wax am ko wax wasaare mi ci réew mi. siiw lool e macha allah nañ leen ko wayal sunu way lamb man dinaa ko way télé bi xew si jamono ta xew télé bi xew si jamono télé bi xew si jamono ki kar mu di la daw ku laccum gaynde ku ko nar a këf mu xiru sa kaw cuccum ceeli du ko këf ko moo baax yaa baax yaa baax ba baax baax ba baax yaa baax moo baax yaa baax yaa baax ba baax ba baax yaa baax jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di am kontaan ak mbégte jàkkaarloowaat ak yéen mais ñu ngi fii ci Tëngéej ñëw seet si fi kenn koo xamante ni macha allah muy ngañ Diop ngañ loo Ngagne Lo ñu bari xam ko ci muy jaaye ay bagages yoo xamante ni ay protéines la mbër yu bari di ko soxla ñu bari di fi ñëw mu am ngénte tey euh, ñu doxantu fi ñëw fekk fi kenn koo xamante ni bokk na ci ay xaritam muy doomu daan kenn ko présenté ci làmb dang ñu ngi nuyu. waaw jubilaa bisimilah inna wali yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu-sanga yi ñu ngi nuyu ñëpp tey moom bu ñu teewee fii kenn duñu laaj lu tax parce que ngañ suñu freer la suñu xarit la liggéey boolee ñu ñoo bokk benn dëkk aussi muy yëngu ci loo xam ne aussi ñun dañ koy soxla ñuy yëngu ci loo xam ne moom aussi da koy soxla donc ay mag ay raka lañ su xewlee war nañ ko mën a teewal quoi loolu moo waral suñu tànk fi tey. kon da ngay dem ci boutique ba parce que gis nañ ngañ di jaay ay protéines ay xeet yoo xamante ni athlète da koy soxla. déggoo li ma xanaa maa ngi naan naan moom li muy yëngu ñun dañ koy soxla ñun tamit dañuy soxla avant boutique ñun ak ngañ le woon. donc moom bu ubbee boutique ñun dañ ci war a jàpp bu baax a baax te vraiment aussi li muy li muy li muy jaay maanaam sportif yëpp yëpp yëpp ñoo ko soxla donc dañ koy ñaanal xam nga mu yàgg fi loolu te wér. Dangu fan nga nekk depuis sa combat ak Farouz ba léegi làmb gisuñu la foo doon. waaw maa ngi liggéey rek ñu ngi suñu xam nga ruuxa di liggéey rek làmb ji moo xaw a kii rek léegi. gars yi ñu war a jël jëliñu xam nga ñu ñu toog rek xaar ko loolu la rek. comme ñan comme ñan parce que ba tey. boo xoolee fi nga génn ko daan man suma suma palmarès. kañ laa gëj a laal maa ngi def vingt combats seize victoire quatre défaites donc su may naataango war nañ ma mën a jël nekk moo fi nag du tudd kenn di may kenn promo mais ñi ma war a jël nañ ma jël ñu bëre. non mais danga nga war a ciblé de ñaar diw ak diw ak diw. xam nga bëgg naa daje ñu ñoom. mbër mu def vingt yaakaar naa ne war na dépassé fu muy taxaw naan diw laa soxla wala diw ñi ma war a bëreel nañ ñëw ñu bëreel su dul ñooñu ma toog xaar rek amul benn problème amul dara lu may yaakaar. mais mbër boo dékk micro danaa la doomu daagu daa am ci loxo bu may daw ci moom gauche bi wala droite bi ban moo gën a fort. waaye man ñaar loxo laa yëpp bëre dóor la rek. daa am ñaata kaaw nga am ci làmb. man def naa ay six xaw ma sept kaaw yooyu laa def ah ay six wala sept kaaw yooyu def naa parce que su ma juumul sama premier combat dama ko kaaw maa yoroo baax. ma kuña dama ka kaawa maax naaro sogas maax guinée maax ñax jariñu maax sox maax farouge def naa set kaaw set kaaw laa def tax est-ce doo wàññi dóor yi indi bëre bi pour gars yi ñeme problème bàyyi léegi moom damay damay raay rek waaw bàyyi naa dóor loo wax ci wasaare làmb sit boo xamante ne mu ngi ñëw ci làmb yokk ci non bëgg ànd ak yi ba fu ngeen jëm ñoom ñoo ngi wasaare lamba ji te incha allah balaa fa ñu néew ñun dinañ leen contacter pour wax lu am solo sax incha allah wasaare lamb sa kaw ca kanama ah. jërëjëf jaajëf jaajëfati jërëjëf kii mooy Ibou Ndapa numéro 2 maa lay nuyu. oui maa ngi lay fay gaynde di la siyaar. oui fi la paix. waaw ci xew Ngagne loo mais macha allah ñi ma fi fekk ñëpp dafa mel ne ay mbëru lamb yëpp fii lañ dajaloo nu waral lool. waaw ngañ ngañ maanaam làmb sax nekkul taxul ñu xamante ngañ ngañ dafa nekk suñu doomu ndey dafa yàgg bu ñu amee combat muy sonn ci ñun ñun ñoo bokk lépp daal ñu la ngañ loo waaw. noo mel moom noo mel ci làmb ba léegi gisuñu la Ibou Gueye nañ laa gis nga sorti de. non man moom euh, làmb moom nu ma ko mën a waxee moom xam nga làmb ji léegi moom dafa neexatul parce que tamit da ngay bëri di daan di bëri di daanu lu tax sax nga am combat parce que léegi affaire affaire de kii la quoi affaire de kumbaam ndey la kumbaamul ndey mais ñun ku ñu xam-xam ne ñun lamb duñ ci yaafus parce que bëri nañ plus de dix combats am ci ñetti défaite comprendre nga kon donc beneen saa làmb moo tëral di rek mais ñun ñu ngi suñu ruq di waajal a di entraîner. bien. instant yi foo toll ci làmb promoteur yi ñu lay contacter wala. waaw instant yi moom ñu may oo wax ay yenn combat mais combat yi may wax moo ma arrangé gul quoi. ñan. waaw du ma tudd tur nag instant parce que instant yi <laughs> tollu ma may tudd benn turu. mais war ngaa a wax kan lay doxal ci nañ man ki ma yeah ñu lay jaajëfal ok merci beaucoup. mbokk yi jërë ngeen jëf comme ni ñu leen ko waxee ñu ngi toxaw kenn koo xamante ne mooy coach Lamine coach Lamine ku ci nekk xam ko ni fii ci Tëngéej mbër yu bari jaar nañ ci loxoom coach ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax na ngeen def. noo def ak jiite. waaw ñu ngi nii rek kër kër yaa ma gën a xam. tey nag buñ la gisee ci fi nga xamante ne mooy xew ngañ loo duñ la laaj loo fi def. waaw ngañ moom sama lépp la. waaw mënuma lim nag waaw mais sama lépp la waaw bi ñuy xamante yàgg na boobu gënoon na nekk tout tànk xam nga affaire musculation ak leneen ak leneen sax waaw ñu sekk lu bari ci àdduna vraiment muy ku baax ku am taalibe vraiment te gëm boppam waaw doon jàmbaar te man moom boo doonee jàmbaar rek doon Baay Faal mooy loolu daal. <laughs> waaw kon ñu dugg ci làmb tuuti. yan mbër ñoo jaar sa loxo. waaw mbër yi jaar sama loxo bari na ku mel ni limousine jaar na sama loxo. Quench Boy mi ngi fi euh, Gora Ibou Ndafa Ronaldinho waaw euh, Sandrep vraiment petit Baye Fall boo yi ngay dégg léegi petit Baye Fall ak kii ñambe petit Kona gars yu bari ah boo yu bëri vraiment boo yu bëri sax moom du boo da ngay juum mais bëri nañ lool sax waaw ba léegi maa leen yor sax waaw waaw. ñu taxaw seetlu ci ñaari mbër ku ci mel ni Quench mi nga wax ak petit Baye Fall ana petit Baye Fall fu ne. mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi di waajal sax combat mi ngi waajal combat décembre bi lañ ci am yaakaar mais c'est pas encore sûr mais ñi ah, waajal combat fi mu ne nii combat bu doy waar sax waaw waaw. noo gisee mbëri yi nga xamante ne léegi ci làmb lu ci bari seen ñàkk doole mooy tax ñu ñàkk combat bi wala seen ñàkk compétition wala lan loo gisee làmb léegi. waaw làmb moom dafa boole lu bari làmb dafa boole bëre entraîné mbapat la bëgg wax entraîné di contact di dem fële suuf sa di dem mbapat yi ci àll bi loolu la boole léegi nag man pour man waroo bàyyi bi def bee da nga war di contact di dem suuf sa di entraîné salle di entraîné. di dem tamit kii mbapat bu amee nga dem. man loolu laa gis daal ci làmb ji mbër boo xamante nag amoo compétition surtout mbër yu ndaw yi boo amul compétition noo def mu feeñ ci làmb ji waaw waaw te dama gis ni sa mbër yu bëri léegi làmb ji da leen raw ndax amatuñu compétition amatuñu entraînement waaw surtout tamit di déglu coach yi daal am na solo lool parce que saa dégg jour benn père di ko wax ma fàtte ban père sax xamu Birahim Ndiaye la koy wax nañuy mbër yi nañuy déglu seen i coach te lool dafa am solo parce que yow koo xam ne dafa am professionnalisme si dara moo la mën a teg ci yoon nit mënul bañ a juum sax mais coach moom moom moo la mën a teg ci yoon teg la ci ak xama la lu bari daal waaw loolu daal laa gis waaw waaw waaw. combat bi muy bëri Diène Kaïré yéen a àndoon ci liggéey bi. waaw Quench moom depuis Xaadim Ngom laa ko yor. yàgg naa ak moom daal vraiment yàgg nañ lool lool mu déggal ma doon sama xarit doon sama lépp daal. waaw boobu la ñu boobu lañ ñu dalee ànd mais mook combat bi passé vraiment ñoo ko préparé ndoo lépp bu mu demee Europe ñëwaat Espagne ñëwaat demaat ñëwaat lépp ñoo ko préparé ndoo macha allah waaw. mais noo gisee làmb jooju ñëpp yaakaaroon ni làmb ji dina neex di nga gis xeex di nga gis bëre te jël dina am par mu mujjee nul ci ay xale yu ndaw. Mhm. noo gisee loolu. waaw mais dafa am benn affaire bu ndaw bu ma la bëgg signaler rek c'est-à-dire gis nga ku mel ni Quench ñëpp xam nañ ni bërekat la yow mu la tàllal micro micro bu ma la ne kon si xeexkat la wala bërekat loo may wax xam nga kon ku ñëw pour bëre yow nga daan ñëw tamit di xeex kon defe naa boo ñëwee indi li nga daan indi kee tamit indi li mu daan indi defe naa foofu noonu làmb ji warut a yàgg daal mais boo xoolee jën kere man blaamee wu ma ko nag parce que tamit làmb la ku si nekk ni ngay bëreeg moom ku si nekk li ngay indi mais moom jën kere boo xoolee jën dafa ñëw xaw a téye boppam bëri na nag mënu ma ne du ma ne mais dafa xaw a téye boppam quand même bon loolu tamit dafa xaw a bloqué conche tamit coinché def na li ko war yëpp te du ñëw saax saaxee combat am xam nga ni du xel. bon mais nag n'empêche ñun tamit dañ koy blâmer te loolu ñun moom la quoi liñ koy xel xelal li ko blâmer ñun moom la liñ koy xamal lu bëri xamal ko ni am na erreur yo def yow tamit n'empêche li nga daan def defoo ko mais teewul tamit ki sa adversaire deful li mu daan def moom tamit. loolu erreur boobu mënoo ko wax askan bi pour que bu ëllëgee jeune xale yi nga xamante ne dañoo nekk ci lamb di bëre ñu mën ci bàyyi xel parce que en tant que coach buy wax consultant boo xamante ne xam na làmb mbër yu ndaw yi ñu jaar sa loxo te am na yeneen mbër yu ñëw yàgg xaar nañ ci mbër mi ñëw Quench nekk mbërum penc Diène Kaïré nekk mbërum penc ñaari mbër mbërum penc daje ñëpp lamb ne dina neex dinañ gis xeex dinañ gis bëre mais gisuñu ci dara mm-hmm. est que loolu nga préparé woon Quench no man moom Quench vraiment dama ñëwoon préparé ko mu yenu waaji daan ko mm-hmm. waaw dindi nañ doole bëri nañ euh, travail nañ doole travail nañ lépp bon conseil yi nga wax noonu dëgg la waaw certes askan war nañ ko xam mais pour man ñu gis ko moom ëllëgee ñu gis ko moo ma gënal daal ñu gis ni Koinchi mii nii changé na moo ma gënal ma koy wax nii ama mooy loolu daal je préfère ñu dem ba ëllëg ñu xam ne ah kii kat changé na kii kat ay mbokkam wax nañ ko yab nañ ko defloo nañ ko li defloo nañ ko lee man laa gis quoi. te noo gisee lamb léegi fi mu toll nii actuellement. lamb métti na méttiwul sa waay <laughs> métti na si méttiwul gis naa ne daal métti na si mbër yu ndaw yi mais mbër yu mag yi sax léegi métti na si ñoom métti na làmb ji daal dafa xaw xaw taxaw tuuti quoi mais bon nañ ñaan yàlla comme facteur de développement comme ni ko gars waxee nañ ñaan yàlla mu jëm kanam ndax yéen ñi rek defe naa bi ngeen juddoo yàggul te macha allah ñi ngi gis seen liggéey macha allah yéen ngi def lu doy yàlla na jëm kanam yokk ba affaire yi gën a yaatu waaw macha allah waaw waaw. jërëjëf ko jaajëfati frère ba tey mbokk yi ñu ngi toog kenn koo xamante ni limousine ku ne xam limousine dañ koo gis ci làmb limousine ñu ngi lay nuyu. waaw alhamdulilah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi yaslih li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sànq maa ngi lay bu baax di la fay. Limousine tey bu ñu la laajee lan moo la indi ci xew ngañ loo ban affinité nga am ak moom. ngañ ngañ depuis xale ba léegi ñooy ànd sama grand la nag ku baax la si man mais depuis booy ba léegi arab lépp ñoo ko bokk ba jamono juñ toll nii quoi mais sama grand la te baax la si man mais sama suñu enfant lépp ñoo ko ñoo ko ñoo ko àndandoo ba fii kon tey bu yàlla defee muy xew sama mbir moom waxatuma sax man samay combat da siy taxaw bu baax a baax sàggantuma nag disam tey kon li ma war mooy ñëw fii daal loolu moom gën a yëkkati ma koy ñaanal nag xale bi ak soxnaam yàlla na leen yàlla jubaale ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax ne kontaan nañu bu baax parce que moom bu baax la daal vraiment ngañ ngañ daal amuñ dara luñ koy dañ koy ñaanal rek parce que suñu nit la daal. parce que sa nit la waaye Limousine ku dañ la gëj a gis ci làmb lu waral lool. non man daaw rek laa bëriwul. ndaaw rek laa. waaw koo mujjee bëreel. daaw ma seen junior laa mujjee bëreel. waaw. loo ci amoon. dama jëloon defet waaw. depuis sa combat yaa ngi seen junior def année balance ren promoteurs yi ñu ngi lay contact. waaw ñu may dox bu baax a baax daaw maa toog rek bañ a bëree quoi doon defaraatoo yooyu mais dara mais incha allah ren am na daal. yan mbër nga jàpp ni ba léegi ñu ngi dox seen combat yaa ngi ñoom. waaw xam nga lam moom moo baaxoo loolu. tey mën nga wax kii suba nga waxee mais man sama adversaire Malick Niang la man Malick Niang moomu tax a jóg du keneen te comme si xew lañ nekk nañu wax si xew bari ko beneen. Eh, waxuñu ci xew parce que wolof daf lee bis boo gis bis lay fay mbaa muy lebal bés tey bu ñëwee fii fekk la fi ñu waxtaan ak yow ngir làmb ndax yaakaar naa lépp loo am rek làmb moo la ko may Malick dafa weex mbëri koo ko jox avance am mu daw nga ñemee risqué jël Malick Niang foo teg loolu. Malick Niang dix combats la fi def man treize combats laa def dix victoire trois défaites. moom def fi dara def fi luñ deful su ko weddee ñu mu dugg si àll fekk ma fi du ma moroomam voilà loolu rek mais comme si xew lañ nekk nañ bàyyi beneen bañ gisee incha allah eh, loolu la quoi. <laughs> mais fi mu toll nii jàpp nga ni kon bu dul Malick Niang kan nga jàpp ne war ngeen a mën a dajawaat ci làmb. non Malick Niang bu dul Malick Niang Elton wala Jordan wala Pakala. yow si lu dee. non amul lu ñu ma dee dañoo. mais da nga am fit. non du question fit sax damaa xam ne defuñ lu ma deful rek. ci làmb defuñu lu ma deful loolu la rek mais nag comme li ma sànq daal comme ñu ngi ci xaw nañ bàyyi incha allah di ñaanal yàlla soxna si ak euh, tout tànk bi yàlla suturaal ko mu màgg bu mën a defal ngeen ci barke Seydina Mohamed parce que rabul sama waate wala adet rek moom moo mën ko waa yàlla suñu borom dañ koy ñaanal rek ngañ moom jërëfat sama yëf lépp la ciy taxaw depuis xale laa la ba nii ma toll chaque jour dañuy dégg dañuy gisante kon li may wax mooy ñaanal ko yàlla na ko yàlla taxawu fay ko di nuyu sama gaay yu baax sama xarit yeeg ñëpp di nuyu sama copain yi ma àndal muy Amari xam ak euh, sama gaay ñoom ñes ak copain yëpp ak gaay yi daal bëgg naa nu baax a baax sama gànnaaw ci jaajëf jaajëf is kontaan nañ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 tur yu mag yi waa li neexut sa Djily Kébé sëñ Basirou waaye ak Djily Kébé sëñ Basirou Diouf waaye li neexut ci ñaari tur yu mag yi ci Wassare Lamb revue de presse bu neex mereef bu neex ku bëgg a gis yu leer caméra yi nag jógewul Sénégal États-Unis d'Amérique la jógee set wicc leer nañ lii neexut Wassare Lamb Wassare